taaru mu yàññi di ko jooru koo koy bi koo koy doomu maanaam jàmma kolaw nekk ci région bu Kaffrine bokk ci commune bu ñuul su ma deewee ngeen may man su ma deewee ngeen may xaam yàlla na yéex Omar senegaal dëkk bu naxaree dund mais dëkk bu neex a la su ma deewee ngeen may xaam saqarubu an biha xayrul bariyaati sawbul xayaa bil gada yaa wal ashiyaati du tànk laa woon bi may daaj bi ñëwal ci atum 2008 xalifa daal di ñuy géewal daarul xabibi waxtul fajiri mbuut mi solu lu bees tàq gane si ci kër gi xale bee ko solo xubbu cheikhi bil qalbi naarun talazza laa tara fii siwaahu lil qalbi hawa beneen air beneen facette ci beneen melokaan ba tey jëmm ji la yéem ñu bëri ba raw njombentaan samaaw bu bees judd ci kër gi am mag aki rakk aki sët may diis bi séddale paas yu garaawik bii sët tët tët haza hilaalun li shahril mawlidil alami rabiu mawlidi taha tayyibi shiyami maam xaalifaay ki ñu doy ñuy kañ di bàkk di ko way o fii saxoo daan di woy xalifatooy suñu mbër saay su weeru gàmmu terwaan mbëru mbëri fent ay bayit bindee na fu ne lu ne ci aliwaak suuf rawatina ci ay kayit def na ay junniy junniy bayit ci patron yonnee ni mais def na ay junniy junniy bayit ci patron walliyu yi madadu rijaali waa xawsuhum sheykhi tijaanil afdalu bismillah bu ma kenn yóbbu doktoore man li ma feebar moo may faa ci layla yàlla wërsëgal na ma ci jamonoy ndaw ma ziyaare ji cheikh di ko ñaan ziyaara ji maamam balaa at mi di jeex métier mi nag yombul ndax gis naa ci lu ne dégg ci lu ne am ci lu ne ñàkk ci lu ne daj ci lu ne mais dem ci fu ne su ma deewee ngeen may xam man su ma deewee ngeen may xam yàlla na yéex Omar Sénégal dëkk bu naxaree dund mais dëkk bu neex a dee su ma deewee ngeen may xam aca loxoy bawal bawal wandu kuman dawal dawal walaalo jalal jalal sinu saalum dañoo ayee su ma yàlla bëggee baysal na ma bàyyeeg yaaw su ma bëggee na ma bàyyeeg yaaw way bi tax na ñu bari ñu ma xamul woon tey xam mu juróon coow lu bari te du lenn lu dul fiiraange sant yàlla ndax tax na ma fas jom yokku xël yow xam nga ni say may toll say natt noon lay toll bakkan naroon na ci des bu fekkoon aw ma kaaraange su ma sañoon bés bu ne su ma manoon fajar gu ne ju wetu maam xalifa ñaas laay yeewoo jaar naa fu bari di làmbaatu mais tey daj naa ñam naa xorom ñam suukar mais tey xam naa 1881 ba 1959 2008 ba 2024 maag xalifa lépp a ngi neuf aduuka ya rabbi fi amaali yàlla أعيينا غيرك من دان ومن ناء fi ma jaar ba yegsee gën a metti deuxième guerre mondiale carrière bi du maam du baay tax tey ma nekk international rajo yeeg télé yi mboolem réseau yi xam nañ kuy Omar Dia su ma deewee ngeen may xam wóor na su ma baay Saïd ak sama yaay xujja su ma deewee ngeen may xam man su ma deewee ngeen may xam yàlla na yéex Omar Sénégal dëkk bu mais dëkk bu neex la su may Omar Dia mais la plupart des gens le surnomment Ben Khattab. Originaire de Kafrine dans le village de Niamakolon où il a commencé ses études coraniques près de ses deux parents. En 1990, Ben Khattab s'est rendu à Durbel pour poursuivre ses études jusqu'en 1995.